Cheikh Nourouba. Je suis la voile des cœurs qui se fanent. Je suis la islameuse Tidiane. Salam alaikum. L'altruisme dont il fait preuve est celui qu'on réclame. Nourou l'âme éternelle qui vit et vivra en nous. Cher Nourou Minugum. Cher Bi, foo ñu woo ñu a dem fag ndax sa jafe jafe-jafe the let me raise my voice and Islam for choice Sheikh Noor, your generosity is so remarkable because you are so admirable, lovable, and honorable. Je vous remercie, woote waru ba Cheikh Nourou Tam serviteur de Dieu et de l'humanité Je vous bi ñu borom bi jagleel kon nañu maase alhamdulillah Nourou est le docteur des cœurs qui, ne reconnaît soleil comme lune il est l'incarnation du sceau des prophètes dans cette vie Muhammad sallallahu alayhi wa il est le maître incontesté de la news divine, le pouvoir qui nous guide et nous fascine. Il est celui qu'on ne saura ni dire ni concevoir, tellement avec lui on attend de pouvoir. Il est celui il est la parfaite incarnation de cher Ibrahim s'il si si bakkal l'en ma waayu Cheikh Assane dembi ki jox nuuru faydu bi mu sedd ñu ci xéewal yi yal na yàlla yokk seen leer te taas ñu ci seen barke vous êtes plus là mais vous êtes partout où nous sommes jërëjëfe Cheikh Nourou Ba vive le salam salaamaaleykum

وذكر بالله سواء islaam muy al isra ko wax ci gaay bi sa xel daj ci sang bu tedd bi borom xam-xam bi jàngalekat bi aarif billah bi ku baax kii di Seydi Mawlana Cheikh Abdou Bakr Hassan Dème nga xam ne fu mu waxee xol yëpp tooy waxuma xam-xam ba waaye dal ga ak teey ga ak mbaax ga te dëgg-dëgg xam-xam rek Mawlana Cheikh Nour radiyallahu anhu dafa dafa doon wax ne yéen da ngeen jàng bu bëgg a dee waaye dafa am lu leen dese waaye lu doon wax ne moo ñu desee noonu lañ gis Cheikh Abdou Bakhi kon ñun suñ koy sant di naan dañuy wax ne jërëjëfee Baye Nourou Ba jërëjëf Baye Nourou Ba ndax moom mooy ñu ko matal Cheikh Abdou Bakhi Hassan Deme daan nañu wax ne yi man bàyyi leen ma ak kilifa yi yéen dénk naa leen Cheikh Abdou Bakar Sandem waaye foofu ngay gisee ne Cheikh Nourou Ba ko am hikma la ndax su waxee ndaw yi dénk naa leen Cheikh Abdou Bakar Sandem boobu xam na ne ndaw mooy avenir kon avenir la ko dénk te avenir nag duñ ko dénk ku ñu wóolu duñ ko dénk ku ne ndax avenir moom lu am solo mooy lépp donc sang bi cheikh abdullah hassan dem ñu ngi lay jox kaddu gi tafaddal mashkur يا سيدي السادات جئتك حاسدا أرجو رداك واحتمي بعماك مصار كم انتبي والله يا خير الخلاق إنني قلبا مسوقا لا يروم سواك وبحق جارك إنني لك محروم والله يهلم أنني أهواك كما قيل أنت بدفني مقل سيدنا محمد هود ويونس من باك تجملا وجمال يوشوى من ديار سناك كبك ينتبه دفني نمقل سيدنا محمد ما كيف تلخى رقيك الأنبياء يا سماء ما توردها سماء سيدنا محمد لم يزاوك في علاك وقد قال سنا منك دونهم وصناء سيدنا محمد وإنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء كبدين أنت بأنت نسبة كل فضل فما تصل duru ila andam ikal adwaw mooy imaam Cheikh Sidi Ahmad Tidiane ذاك الذي نال ما لم يحويه بشر من الغطايا ولم يحرم من عياش شيخ تيجان ما يقبس البرايا ابو العباس احمد من ما انا واحسن عن الجلال التاسي شيخ تيجان sang bi ñu ngi lay seet dem seeku tijaani mooy rom su wujuudi wa sirul ak tan sa mu woo seex mbakk na mu kan la sul moom ni ko raasi sa waa ji mooy aqiqatul kaw ni max na sëriñ mat ma woo seex waaye faydul ilaahi bilaa nafsin wala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 تلاتي غنا بوفاري نوي مولن كوفي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نيو برام خام خامي نيو اساتذه نيو نيغا خام ني نوي كليفاي اداي واي نيو روح سيدي وحبيبنا وشيخنا شيخ نور با الرجل الذي أحرقت نار الشوق والعشق قلبه فتلاشى في حضرة الله تبارك وتعالى ونال مراتبا عالية وتجسد نورا في حياته فأفاض واستفاد منه رجالا ونساء كبارا وصغارا فجزا الله الخير هذا الرجل الكبير هذا الرجل الأخلاقي الكبير الإنساني الجليل رجل عابد لربه ورجل يعرف المعاملة في الله بالله لله فجزاه الله خيرا وبارك في أولاده وبارك في أصحابه وبارك فينا جميعا ببركته بجاه النبي صلى الله عليه وسلم kon maa ngi nuyu ruuxa bu tedd boobu maa ngi nuyu maa ngi nuyu ku màgg kooku góor googu nga xam ne naar la tuddoon waaye safaraayu liggéey safaraayu ashku moo lakk xol ba ba seey ci pay yàlla bi tabaraka wa taala amee fa nag daraja yu kawe yoo xam ne ñëw jëmm fii nekk leer koo xam ne leeral na ko xam leeral na Sénégal yàlla yàlla yëkkati darajaay Cheikh Nourou Ba may nuyu xalifaam Cheikh Ndiol Nour Ba muy Seydi Idriss ak rakkam bu baax bi di Seydi Daoud ak seen rakk euh, du ma fàtte borom daara ji Cheikh Mouhamed Bachir waaye maam Abdou porte parole suma turandoori baay di Cheikh Hassan Ba ak seen boole mi rakk xaqiqatan ñun kaddu gi ñu jël fii kaddu boo xam ne rek ñëw wéttali suñuy mbokk ci yàlla tabaraka wa taala waaye ngoon gi euh, sëriñ bi daf ko séddoon gan yi daf ko séddoon soppe yi guddi gi mu jagleel ñu ko ne ñun ñooy wéttalanteeg mbokki taalibe ñu dund ci yonent yàlla Muhammad sallallahu wa sallam ba fajar jot kala aadati rek ñoom leen def pour rafetal kóllëre googu waaye li ma bëgg wax mooy ne alhamdulillahi rabbil alamin mbir su fekkee dangaa fekkee bidaaya bi ba waxtu wi nii nga gis yàlla nga koy yokk alhamdulilah yàlla mu ngi yokk tey ku foogoon ne Seex Nuuru Ba su génnee àddina jeex na yow da ngaa xamu yàlla ak gaaya bi yàlla lan ko ku kóllëranteeg moom dëggal sa kóllëranteeg moom mu dundal la ci dundam gi nga xam ne du jeex mukk mooy war a faanaa laka zikraka bi mu wax yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa tur dinaa ko yëkkati yëkkati tur boobu nag képp ku yëkkati sa xol ak sa lépp jébbal ko yàlla tabaaraka wa taala foofu yàlla gën a la moo tax alhamdulilahi rabbil alamin dem na waaye tey la fi mbootam gën des dem na waaye tey la fi mayam gën a des te ku ñëw ci jotaay bi di nga xam loolu ne jotaay bi ni mu mel gën naa rafet gannaawam kon loolu dalal na suñu xel ne dina gën baax ëllëg dina gën a euh, di wax rek mbokki taalibe yi na ngeen xam ne mbóoti yàlla yàlla fu mu ko fa ko def du fa jëlee mukk fekk seen ñooñ soriwul soppiwul inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim saalixiina yi ñoom ñooy jur saalixiina yi loolu la bàyyi wax lu may lu gaar di am gaar nag mën naa am euh, doom jaar yooni bàyyam amaana du doon nu mbóotie waaye su fekkee ne doom la daan bàyyam daan nekk mu ngi ci lan la Cheikh Nourou Ba doon nekkee jàng jàngale firi alquran يرجعوا يالله جوكم بكو وحنو باخ دفنو باخ نجبوتهم كي الحمد لله رب العالمين شنو اللي نك كل ما تموت ميجا خمني موت نكون في دينك قنا أبو بايدين عندنا إمام حسن سيسي رضي الله عنه من الرحمن بن نجور بو خمني خايت بايدون تشيخ خادر إلى بو دفنا كونكو حسن ما نلي وحنا لا لين دان دف تي سكان الإمام تي دكان بفيد ميانكو في جسر مبرنو تخمك مبكران نتلفنا الحمد لله bàyyi bu fekkoon ne weeru dee kenn moo fa doon tere alxuraan léegi ci Medina ba bu set ay téeméeri téeméer ñoo fay tere alxuraan alhamdulilah rabbil alamin ci daara yi nga xam ne ñoo fa nekkoon mbuur maan fa kon nag li daan Cheikh Nourou ñu nekkee fekk njaboot gi ñu ngi ci mbuur mi du fi du fi bàyyi ko te gannaaw mooy ëpp doole fuuf nag dëgg la kanamam ndax yàlla bu yàlla nangul ya néew ñi tasawufee ci alamul naasut gannaaw bu mu fàddoo moo gën a moo ëpp doole di jamono ji nga xamee ne mu ngi dund dafay mel ni ki nawet rek nawet rek mu ngi taw doo am gerte doo am mboq doo am dara waaye boo xamee ne tawatul su boobaa jaajaay yi ci la ñuy kontaan ak saw saw yi waaw kon nag jaajaay yi saak saw saw yi nga xam ne nag ak dem-dem yi nga xam ne ñoo ko la rajo Cheikh Nourou haniyan lakum waaye na pas-pas bi wér na gëm-gëm gi wér na dëggal gi wér ngeen gis ne ñi fi nekk ñoom ñooy Cheikh Nourou Cheikh Nourou moom mooy ñoom. jugee wu fi te du fi jugee mukk loolu moom mooy jëriñ doomu aadama waaye doomu aadama muy xool yeneen bët rek su boobaa sikk daf dafay ñëw ci xolam te sikk nag maa ngi ko tuddee corona bi nga xam ne mooy rey dégg nga seeroog taalibe ci yàlla tabaaraka wa taala moo koy xañ njëriñ gi nga xam ne moom la war a am ci péeb yàlla bi tabaaraka wa taala comme yàlla ñu yàlla may xol boo xam ne xol boo xam ne saadiq lay doon xol boo xam ne dafay dëggal xol boo xam ne dafay dëggu xol boo xam ne dafay fees dell ak mbëggeel waaye tamit ak kóllëre yàlla ñu yàlla defal loolu. ah li ci des nag ñu ngi nuyu bu baax euh, Cheikh euh, Ndiol Nourou ku baax la Malawi TV la man wóor na ma ne bàyyam gërëm na ko ndax Thierno bu seddal na ma loolu ci moom foo ko gis nag nit ku effacé wu la. ñooñu nag ñoo gën a garaaw ci wàllu yàlla yi way oyof mbubb yooyu nga xam ne boo leen gisee ci seen jëmm yi amaan na jëmm ja yiir la dana foog ne amul lu nekk ci ñoom te fekk buñ joxeñee yàlla joxeñ buñ xoolee yàlla xool buñ xelaatee sax yàlla def te wóor na ma ne ci ñooñu la bokk kon yàlla yàlla yóbgal yàggal toogaayam fi te yàlla wéral ko di jaay Moustapha sallallahu alayhi wa sallam yàlla dëppale njaboot gi ñoom ñëpp ñu ànd nekk benn maa ngi nuyu jaraafam bi nga xam ne moo nekk ci wetam nekk haarunaam di Thierno Daawud ñaan yàlla ñun ñëpp yàlla defal leen tawfiq ci barke Cheikh Sandel bi nga xam ne moom la Cheikh Nourou dañoo la joxoon léppam même bu toog buñ ñëwaan fii ñoo leen fi takk njaboot yi Cheikh Ibrahima ngi ñëw ba ñëwee daf leen wax ne leen man de xaw ma leen kii laa xam mooy ne moom mooy sama sëriñ moom nag xam na sëriñ bi wasalaamaaleykum loolu la daan wax kon dëgg googu nga xam ne moom la amoon nga xam ne amul iltifaat Euh, moom Thierno Thierno Thierno Nourou Ba maa ngi ñaan loolu yàlla na ko yàlla gën a saxal dégg nga ci yéen kon fa hiral amaam incha allahu yàlla dina leen gën a dimbale. maa ngi nuyu nag euh, monsieur monsieur le maire bii di Moulay Gueye foog naa ne juróom-benn at wala juróom-ñaari at ñu ngi fiy dajee at bu jot nga ñëw ci kanamu sëriñ bi sëriñ bi gërëm la bu baax a baax a baax a baax bu fekkee ko dala daan ñaanal ba wutaan sax mu tudd ay nit waaye sa sa sa dina ko daan rotal lu ëpp euh, ñeenti yoon ba juróomi yoon ñaanal la bu baax wax sa taxawaay dégg nga ci ci moom ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàlla defal la tawfiq nit ku kóllëre la nit ku baax nga nit ku jàpp kër gi nga fii nag ku ko jàpp bu ma la boo ma xamee boo ma xamut sama ñaan mu ngi yow ci yow ndax fii da nga barab la boo xam ne suñu barab bi la ku ko laal laal nga ni ku ko teral teral nga ni ku ko yëkkati yëkkati te ku koy yëkkati tamit yëkkati na Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu xadara Cheikh Ibrahima dafay tiitaroo place bii nii moo tax nag jàppal na nag képp kuy taalibe Baay rek amee na la njukkal ci fonk nga fonk kër Thierno Nourou Dengara Ba euh, noonu lay nuyoo soxna su baax si nga xam ne moom it doom la ci kër gi di soxna Astou Ba euh, maamam fonkoon ko lool mu yàgg def teraanga ci bés bii nii Euh, di ko def ba léegi ñu ngi ñaan yàlla na yàlla yokk ko ci zaahir ak ci baatin ak mboolem maire yi fi nekk yëpp ñun ñëpp dégg leen seen kàddu yu rafet ñoom ñëpp yàlla na yàlla defal leen tawfiq euh, nuyu nag ba léegi boroom xam-xam yi ma fi fekk Cheikh Aqibu Ñas ngi nii nga xam ne doomi pays bi la boroom daara la buy jàngale alquran di jàngale xam-xam sampu barabam alhamdulilahi rabbil alamin muy ci sëñ Aqibu nga xam ne moom ngay njëkk a jot soo paree ñëw ci sama sanc ba Daaru Miraaya moom it mu ngi teew fii nii ñu ngi koy nuyu bu baax a baax maa ngi nuyu suñ mbokk yu fi nekk yëpp ndax maa ngi gis waa Sàgg yi Cheikh Mahabib Sow maa ngi koy gis Cheikh Malick sama xarit nga xam ne daf maa bëgg te yàlla tax ñëw na ba ca kër ga fasal man fasal loolu suñu diggante ñoom ñëpp gis naa leen te xam naa leen tamit ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant ci seen teewaay yàlla yàlla fay leen yàlla yàlla yokku leen waahiran wa baatinan Cheikh Hassane maa ngi lay bu baax ci biir Fass bi ma jox gën ji barab may dem moom mooy fas te fan yii yàlla xam ne ne damay wax ne damaa namu Cheikh Tidiane radiyallahu anhu bii nag mooy ñaareelu billet buñ ma proposé waaye billet ma gënal bële du ma ko jël bii laay jël boobaag léegi wallaahi yàlla xam na ko ndax bii moom dégloo bii moom ma kontaan loo daf maa fekk ci tooli Cheikh Hassane Deme radiyallahu anhu ñu la ma jaaraama boobu nag moom ma gënal a am yàlla yàlla ñaari li may tëjee nag mooy lu ñëpp wax ñaan yàlla ci réew mi jàmm gis nga suñ buñ mënee toog fii di gàmm ñëpp xam nañ loolu jàmm moo am tey fii bu yëngatu woon tuuti rek yaakaar naa mbooloo mi tas na ku nekk yaa ngi seet noo noo làqee sa bakkan bi naf si naf si moom ñàkk jàmm moo moo moo ci moo ci gaaw loolu ñu wax ne àllaaxira kenn du tal sa bopp naf si naf si sama bopp mooy bu jàmm amul ngir dootul faat dootul tal sax ndeyam ak bàyyam dootul tal dëgër doom euh, moo tax nag neen ñaan yàlla jàmm ci réew mi démb wax naa ko ci gàmmu gi ma fanaan nee na euh, ku mën a doon bu fekkee ne yow am nga mbër moo ànd ak moom nga bëgg mu toog ci réew mi ñaanal yàlla mu toog ci ci jàmm dangaa bëgg ñu fi nekk jugee ñaan leen ñu jugee fi ci jàmm ndax ku yore réew mi tey amoo amoo jàmm doo ko fi yow bala nga naan am ne fa moo tax ñaan jàmm ku nekk la war fi ne ab sëriñ buy ñaan jàmm sax ñu ne état bi daan rek réew mi fi nekk ni dafa naqari man daal xaw koo xam ne politique mosoo wax politique na kii laa faral mosoo na kii laa ànd waaye boo ne yàlla yàlla def ci réew mi ñu ne gis nga ñii dañ ñaan jàmm waaye non dafa am fikra yoo xam ne nañ ko génnee ci bopp yi nañ ko génnee ci bopp yi jàmm ñëpp a ko war a ñaan amul kenn ku warta ñaan déggale jàmm euh, gis na nit ku baax buñ ne réew mi day tàkk gaaw nga ñaan ko faatixa benn ñetti salaatul faatixa wala benn salaatul faatixa nga ñaan yàlla bu réew mi tàkk ndax réew mi bu tàkkee du fa bàyyi sa mbubb du fa bàyyi sa yax bi dina la taalaa nga yow nga def kon réew mi ngeen ñaan yàlla yàlla yàlla def fi jàmm na ñëpp ñaan kuy opposition ñaanal ku nekk ci pouvoir da nga ku nekk la ku nekk la ñaanal mu jot ko ci jàmm laamin bu ci yàlla nangu nag loolu la yàlla di def waaye réew mi tàkk moom wax dëgg yàlla du intérêt kenn du intérêt na ñooñ daara ji du intérêt euh, ñooñ politique yàlla ñu yàlla defal jàmm ci suñu réew mii yàlla ñu yàlla defal jàmm ci suñu réew mii am na benn taalibe Mawlaay Seydi Ahmed Tijaan yi radiyallahu anhu Seydi Xasan yi ci borom xam-xam yi la bokkoon muy Seydi Ahmed al Bannaani aalim bu mag Cheikh Tidiane bu nekkaan ci xartar sax da koy oolu mu ñëw di ko laaj na ko masala sàngam lu ci loo ci lu ci foqaawa yoo muy waxtaan ak moom ba Cheikh xolam féex kooku dafa toog rek dégg majjou bi di wax ku nekk daan ah gis naa balaa bu mag boo xam ne dafay wàcc dégg nga fas xam nga gars yi nga xam ne dañuy mosuntu yàlla di leen woon dara dañ koy tiitaroo suñ paree duñ ci am lenn nag ah xam waxoon naa ko de waxoon naa ko di ci tiitoon loolu ba njëriñ la tiitoon ci balaa bi wàcc waaye moom ba mu déggee ñii ñoom majjur bi ñu ngi wax ne balaa dafa war a wàcc faas xam nga def dafa dem dugg ci xalwaam di jàng latif pour yàlla fay dégg nga de wàccee balaa boobu yàlla yëkkati benn jigéen boo xam ne lan la mën naa na borom këshfu la woon ku amoon këshfu la Cheikh Tidiane sax da daan yónnee ci moom di ko wax na nangam lu mu waxaan rek loolu mooy am yàlla la mu toog gis balaa bi wàcc ba lu ko wàcc lu ko teree àgg ci suuf chibri rek la mu gis ñi yëkkati balaa bi muy dem ci kaw asamaan di dem ci kaw asamaan ba gisutu ko mu ne lii daal lu ko waral waral bëgg naa koo xam mu dem julli ñaari rakka moom jullee ñaari rakka ñaar yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla pour yàlla ko lii lan mooy sabab bi mu ne fu muy ñaare rek am ci alamul xay bi ñu ko fëkk ko ba ci kër Seyd Ahmed Bannaani ubbi bunt ba fekk ko mu toog téye kursam di wér munoo ko Seyd Ahmed araf naaka araf naaka xam neen la xam neen la naka yow ci sa ñaan yi la yàlla yëkkatee ba balaay kon kay ñun ñëpp leen nekk Ahmed Bannaani moomu dégg nga ne ñaan ñii wax ne réew mi dina tàkk yàlla bu réew mi tàkk ci barke bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi